Euh, jërë ngeen jëf ginnaaw bi leen nuyoo ziar leen yéen ñi faral si daan Yeumbeul TV tey nag ñuy seet si Serigne Cheikh euh, dina waxtaan ak euh, fan yi passé di gis nañ ko wax na ci benn émission boo xamante ni émission bu boo xamante ni dinañ ko rey ba baak léegi yaa naa mi ngi nekk ay six jours sept jours bi ñu toogee deux jours ñu gis ne fële ci kër Mbaye Fall rey nañ benn xale bu jigéen dina ko ci laaj dina ko laaj ci mbirum làmb parce que tey jii gis na ne am na ay combat yoo xam ne ay combat yu wuute la rawatina diggante Modou Lo Boy ñaar rawatina diggante Modou Lo Ama Baldé rawatina Tapha ak kii ñuy wax Eumeu Sène dina ko laaj ci lu bëri ba ci Cheikh Ahmed Cissé mi nga xamante ni dafa jabuli si alxuraan dafa saaga alxuraan dafa saaga yàlla comme ci ay kàddoom parce que am na wax yoo xam boo xasee ba wax rek kenn mënta taxaw ne saag nga yàlla waaw wala déet ak ba mu génnee xeetu baal bi muy baalu nekk baal boo xam ne baal bu ñàkk kersa la sëriñ Cheikh ñu ngi lay ziar. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi lay nuyu leen ziar di ñaan lépp loo xam ne nañ ko fi mu njariñ yàlla suñu borom subhanahu wa taala def jàmm am Sénégal yàlla Sénégal sax si jàmm bi loolu passé ñu ngi nuyu euh, képp koo xam ne yaa ngi ñuy siifur moo xam euh, suñu soppee nga. wala suñuy wëlde nga ak ku képp ku mën di doon yal na yàlla defal jàmm bismillah sangam. Euh, macha allah am na solo trop euh, fi ñuy commencé nag balaa ñu dem ci Modou Lo ak ñoom Boy Niang ak ñooy ñoon mhm. parce que amul loo xam te ne waxoon nga ko diggante Balla Gaye 2 ko teg na ci seen bët. Mhm. Reug Reug waxoon nga combat am ak ñëpp gis nañ ko loolu kenn nekkul di ko naataabale. Mhm. dañuy commencé ci xale bu jigéen bi xamante ne nii waxoon nga ci moom. balaa ñu commencé ci xale bu jigéen nag damaa bëgg bàyyi ñuy seetaan seetaan la nga waxoon ci xale bu jigéen ba. ñu door a continuer. di nga dégg ku ñu rey. ah sëñ bi wax doy na waar de. wallaahi azim te jigéen sax lay doon. Mm-hmm. dinañ ko rey koo xam ne raw lay doon. Mm-hmm. te lu ñàkk fayda ci lañ koy reyee. Mm-hmm. incha allah xam nga dama ne la am koo xam ne dañ koy rey. te ku ñuy rey jigéen lay doon waxuma la paa waxuma la ab garant la waxuma la lii la xale bu jigéen lay doon. lu la ci tegal te ku ñàkk fayda lay doon waaye nag waaye lu ñàkk fayda ci lañ koy reyee. waxoon nga benn politicien aussi. dama ne boobu mooy boobu mooy bu jëndagul. léegi dafa des yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne limal naa la ko te loolu insha allahu rabbi dina am waaye dafa am ay at wala ay weer yoo xam ne bu ñu ci accès wala ay jours yoo xam ne bu ñu ci accès ci bis bi wala ci semaine bi. Mhm. ci wàllu raw rawxaani ya raw mhm. rawxaani dafay wëlbatiku di la woon ay mbiri doomu aadama ak doomu aadama du mu mënti doon ba mhm. ilaahi mi abar abar insha allah te loolu mooy lu am. bisimilah sëñ bi. am na solo trop gis nañ li nga waxoon am na waaye wax nga beneen producteur ci lay bokk mais loolu accès gut comme que accès gut duñ ci wax mais dañuy continuer dugg ci mbirum làmb gis nañ ne Balla ci euh, Balla Gaye 2 Boy Niang waxoon nga si na nga ko waxee woon amee na noonu yaakaar naa askan bi yëpp gis nañ ko parce que ñu bëri ñu doon xaar nga dem VAR VAR bi amul mu gis na it aussi euh, Modou Lo war na bëri ak Boy Niang Modou Lo war na bëri ak Ama Baldé combat yooyu jóg dëgg mbal alhamdulilah xam nga guddintool ni biddiw ki nga xam ne mooy Modou dafa baax ak mbirum raw xaanam fi ñu toll dafa am kàttan moom Modou Lo waaw léegi nag moo tax bu góorgóorloo ci ñoom rek yàlla suñu borom mën na koo may ndam moom hmm. bokk na ci nga xam ne seen rawxaan am na kii waaye nag ci kaw hmm. mu xam saraxu bis ba bi bëri ndax à chaque fois dama wax ne la xam jour dafa am solo dama aadama bi buy wute ndam jour boobu dafay am sarax bokkut ak nit ki ñëw na la damay bëre suuru tel wala damay def nangam ak nangam doomu aadama jour bi nga xam ne dafay wute ndam jour boobu dafa am sarax spécial loo xam ne bokkut ak rawaxaanu Modou Lo bokkut ak biddiwu Modou Lo bokkut ak àndandoo yi nga xam ne ñoo nekk ak Lo boobaa suur ba xam nga bis boo am bis boo gis ci àddina dafay am rawxaan am xuddaam am malaayka bu nekk ca bis ba am biddiwu bi taxaw léegi bis boobu nag ban sarax nga war a génne ci suur boobu pour li nga bëgg mën a yëkkatiku léegi ba xamee saraxu bisam ba lépp lu mu bëgg am ci àddina mën na koo am. kon làmb sarax da ciy dox bu baax. da ciy dox bu baax a baax. incha allah. mais man li ma jaaxal ñu bëri dañuy jàpp ne yow dafa am ñu nekk sa ginnaaw di la wax parce que dañuy gis lépp loo mën di wax dañ koy gis est-ce que nekkul dafa am ñu nekk sa ginnaaw aussi. alhamdulilah xam nga yàlla sunu borom subhanahu wa taala dafa am lu muy maye dañuy wax ne sax dafay able ndax ba ilaayu mi abat du ma mës a toog ci télévision di bàkku ba ilaayu mi abat du ma mës a jël benn affaire teg ko ngir. Euh, di leen teg mbagg borom bi tabaaraka wa taala jël naa lépp jox ko moom yàlla moom yàlla topp ci ginnaaw yu ni waaye lépp loo xam ne wax naa ko ci Quran insha allahu taala loolooy lu wér mm-hmm. man bu fekkoon ni tamay wax kon damay dem vaar di am déet mm-hmm. ah mm-hmm. ba illaa yemi abat abat doo ma sa dem vaar te lépp loo wax day am te lu ma la wax ci àddina jàppal police mënu ci dara gendarmerie mënu ci dara politicien mënu ci dara sëriñ ba wér di ci wàllum turu yàlla mu mënu ci dara lu ma yàlla may la rawaxaan la ci man la ne lépp lu ma ciy wax loolu li am incha allah. dinaa si ñëw ñu gis ne Modou loo ñaari combat la am Tapha Tine am Eumeu Sène ñu bëri jàpp ne euh, Tapha Tine Eumeu Sène bu dikkee bu yomb. gis nga bu làmb ji desee ay quelques jours. Mhm. dinaa la wax kan mooy daan. Mhm. wax la nan la koy daanee ak bu koy daan ci ban fan ci ban anam ci la koy daanee. billaahi lépp lu ma la wax ci raw xam jàppal. mais ni nga ko waxee woon contre Balla Gaye ak nga ne Balla nii la ko Boy Niang di daane loolu sax nga kaa waxat ko raw laa koy waxee ba illaa yow mi abat du ma jug ci di nga xam nga preuve dafa baax doomu aadama bu fekkee da nga yëngu ci dara di wane preuve di wax loo xam ne nit ñi dañ teg dafa baax xam nga boo gisee nit léeg-léeg mu jël ay leket teg jël ay pertaaw jël ay nangam wax lu mu wax nit ñi weddi ko parce que dafa lépp loo gis ci àddina preuve moo ko féete kaw te lépp lu mën a wax sëñ bi ci wàllum seetu rawxaan wala ci wàllum istixaar rawxaaniya wala ci wàllum mbiru doomu aadama bi loolu nit mënu ko dindi doomu aadama lan la yaakaar ah doomu aadama kan la war a yaakaar yàlla doomu aadama bi kan la war a jaamu yàlla doomu aadama bi kan la war a wóolu yàlla man na du ma ne ragal naa yàlla waaye nag wóolu naa yàlla. macha allah xam nga wóolu yàlla mooy lan. Mhm. musuma sukkandiku ci alalu doomi jàmbur musuma sukkandiku ci yëfu jàmbur musuma sukkandiku sama dépasse ci jugee ci doomu aadama faaliwuma daray nit faaliwuma ndam na du jugee ci posu doomu aadama xam nga lan laa yaakaar saa su ne mhm. yàlla tabaaraka wa taala mhm. mi nga xam ne moom mooy maye te lim ma may amaana am na ñoo xam dund nañ ba téeméeri ba am téeméeri at mosuñ koo am am na ñoo bis bi yàlla sàkk ñi génn seen image naan kii a fenkat la li ma waxoon ñi la amee man nag xam nga nu may sant yàlla mm-hmm. lépp lu ma yàlla wan ma gis ko lépp lu ma wax looloo di am mm-hmm. am na solo macha allah dinañ ñëwaat ci loolu parce que it ci fin bi bëgg naa nga leer lu bëri ci mbirum làmb mais bëgg naa ñu continuer tuuti rek ci kii ñuy wax ci Ahmed Cissé mm-hmm. ah, gis na ne yaakaar naa laal na laal na mot laal na képp koo xam ne dulit nga dëgg la ak euh, ni mu dali oustaz Modou Fall aussi dëgg la automatiquement mu ne oustaz Modou Fall fenkat la day fen julit ak moroomam mm-hmm. en tant julit li nga wax li mu wax yëpp ndax déglu ko mm-hmm. dafa am benn téere bi ñu wax naaju xadaa el xaaj si Ahmad Bamba moo ko bind mm-hmm. adabal ahsan ci lay dox adabal ahsan bu ko waxee mooy teggin yoo xam ne dafay rafet nga dégg ko mu naan la wa in takallam bi maa lam taxlam fa fii siddiqu takun saata karam fa xul lahu lasdu kaza aw kuntu axtaqidu aw innani jaxiltu wa naxwi haza min xibaar min xibaaratin tazur mustaxsanaatin laa tuzi wala tadur daf mhm. si Ahmad Bamba dafa wax wax ju am solo mu ne la doomu aadama bi nga xam ne da ngay wax ak moom mu ne bu fenee sax nëbbal ko ay ayibam waaye bul ko xamal ne ko yow fenkan nga mhm. lu mu ma diroon ci àddina xamal ne ko ah yow kat xamee woon naa ko nii wala nangam ak nangam léegi nag ci cadre foofu dafaa daanu muy lan kan boroom xam-xam mooy Ahmad Cissé mhm. ndax boroom xam-xam defaa daano lu ci jiitu mooy am xam-xam ba pare di ko jëfee loolu mooy li am solo. Hmm. doomu aadama da ngay am xam-xam ba noppi di ko jëfee. ustaas ba demee boo xam ne ko da ngay fen jàppal na am na xam-xam waaye amaane jëfewu ko waaye gis nga alxuraan kenn nekkul loo xam ne da nga koy teg ci suuf. yaa ahlal kitaab qad jaakum rusuluna yubayyinu lakum alxuraan yàlla daf ko wàcc ci anam bu sell wàcc ko ci ay yonent ak façon yonent yu mën di doon na ko ci ahlal kitaab muy xeetu yi sallallahu alayhi wa tawreet noonu injiil noonu zabuur noonu ku ci nekk yàlla suñu borom am na ci téere ci ban façon anam la la wàccale sa téere ba ñi nga xam ne yu ñooy yaa ahlal kitaab qad jaakum rusuluna ñun tamit ñuy xeetu yi sallallahu alayhi wa wàccee yàlla wàccee li nga xam ne ma furqaan mm-hmm. képp koo xam ne taxaw na ne alquran lii bëgg lippeen la mm-hmm. bu dajeeg moom ñaare mën a am dala rey wala nga rey Mhm. ko képp ko dajeeg moom. Mhm. ñaaree mën am foofu dalay rey wala nga rey ko. yaa ngi dégg. Mhm. léegi nag ci euh, ci ni may waxee noonu mooy muy man muy sama morom muy keneen ak keneen jàppale ñun ñëpp la daal. ndax képp ku mën di doon ci àddina boo dajeeg moom nga bokk ci xeetu yonent sallallahu alayhi nga doon musulman bokk ci xeetu yonent sallallahu alayhi jàppal na yow si nga bokk. parce que jàppal na daal la ñëpp. kon képp ku dajeeg moom rek war nga am lu mën a jëflante ak na solo waaye man yooyu sax. Mhm. man intéressé wu ma. Mhm. am na ci loo xam ne dañ koy bàyyi ak yàlla. Mhm. bàyyi ko yonent sallallahu alayhi wasallam. bàyyi ko alquran alquran dafay toroxal nit. alquran dafay toroxal dafay dafay toroxal alquran lu yéeme la yàlla daf ko wàcce waaye ñu ñuy jàng ñu ñuy jàng alquran sax xamuñ xamuñ lan mooy njariñu alquran. ndax euh, gis nga alquran lu am solo la sëñ bi. lu baax la lu màgg la. lu tedd la. dañu wax doomu aadama bu fekkee am na doom ju mokkal alxuraan bu ko suulee ci bàmbeelam doom ja tànk mi ngay jàng ca daara ja yàlla yërmaane yàlla yërmaane yërmaane jooju mënoo ko fekk ci bàmbeelam benn bi ci topp dañuy wax ne bépp chiffre alxuraan maanaam araf boo gis ci alxuraan boo ko waxee da ngay am ay junni junni junni yiw kon loolu lu màgg la fi mu toll nii imagine la yow boo waxoon faatiha ba mu jeex chiffre bu ci nekk ñaata tiyaaba na la ci fay loolu alxuraan képp moo ko man mm-hmm. loolu nag mm, alxuraan nag noonu lay toroxalee doomu aadama incha allah. macha allah euh, am na solo trop euh, bëgg naa ñu continuer tuuti balaa ñu ñëwaat ci actualité ci mbirum politique yooyu noonu bëgg naa ñu mujjee ko waaye bëgg naa ñu wax ci xam-xam. Mhm. parce que askan bi xam-xam lañ gën a xam ci yow. mais pas comme ni ma la doon laaj. sànq jërëjëf euh, tey jii nii nga def seet roxaan. Mhm. seet roxaan fan yii passé nga wax ne moom moo la wan xale bu jigéen bi xam ne dafay génn àdduna. Mhm. nga wax ko avant loolu di am nga am deux jours. lu gis ne am na kon rey fële ci kër bay Fall. dëgg la. ban façon seet ngay seet. xam nga man damay seet ci lu ñuy wax rawaxaan damay def saxaar rawaxaan waaye loolu nekkul loo xam damay seetal doomu adama dama yor ay tur yoo xam ne bu ma koy liggéey ku mu mën di doon loolu kenn mënu ci dara yaa ngi dégg lu ma yàlla borom bi tabaaraka wa may la ak ku mu mën di doon ci addina mu lay neex mu lay naqari say mbir dama koy gis la may wan du lekk du naan. du nelaw la may wan du lekk du naan du nelaw yàlla borom tabaaraka taala moo ko sàkk kon nag nit bu demee ba jëfalante lu mel loolu yaakaar naa fa a faale doomu aadama. parfois da ngay wax nga ne. beneen ci topp ah. mooy may doomu aadama bu ba jëfalante ak loolu. Hmm. yaakaar naa warut faale doomu aadama. Hmm. dina ko jox cër respecté ko ak gëdd bi ko yàlla jox. Hmm. waaye kànkaa ci wàllum doole. wala kànkaa ci wàllum toroxal. yaakaar naa loolu waru waru faale luy bani aadama bi. beneen bi ci topp mooy doomu aadama ci boppam. Mhm. lan mooy ay mbiram ak ay mhm. mbiram naka la war a doon ak doomu mhm. aadama bi xam nga à chaque fois may wax ne ku tukki kenn du ko seetal loolu di xaw a bëri ay coow ay détails ci wàllum sëriñ ma ndax man damay bëgg sama lépp preuve lay doon lépp lu ma génne wax ko ñu leen ñi amee te loolu la waxaan woon ma ko xanaa man damay wan loolu xanaa war na maa doy te yow bi nga ne ku ko seetal aussi loolu la lépp polémique da nga bi dëkk boo gis ci àddina am na raw xaan dëkk bu gis ci àddina am na rawxaan rawxaanu dëkk ba am na sarax rawxaanu dëkk ba am na xuddaam rawxaanu dëkk ba am na biddiw léegi doomu aadama bu tukki ci boppam da war a génn rawxaanu dëkk ba léegi beneen bi ci topp mooy doomu aadama bi lan moo ko tëj xam nga man bu may def seetu rawxaan wala ma def istixaar rawxaan dama naan la jox ma sa jox ma sa turu yaay jox ma sa turu at bi nga tukkee rek ma koy jox weer bi nga tukkee rek ma koy jox. jour bi sax boo ko xamee dama la koy laaj am na ci weer yoo xam ne ku ak koo mën di doon ba ilaayu mi abat doo fa am dara am na ci jour yoo xam ne boo tukkee ko mën di doon doo fa am dara weer yi am na fu muy toll foo xam ne boo tukkee mën di doon dafa am dara léegi lan moo tax may utiliser rawaxaanu dëkk ba parce que rawaxaanu dëkk ba ci boppam bu fekkee daf lay finnaal mook sa xaan ñoom ñaar tolluwuñ wala rawaxaanu dëkk ba daf lay finnaal saa su ne kon doomu aadama bi yooyu yëpp war nga koo soxla ci li nga xam ne moo di li Mhm. moo tax képp ko xam ne tukki nga sëriñ seetal la lam la wax ca seet ga boo ko defee doo ko gis ñaaneem lay ñaanal boo ko defee doo ko gis man nag xam ci lan laay baax nga ne réew mi fii ak ñaata suur lan ak lan mooy am sëriñ bu mën di doon ci àddina soo ma dee walla nga bëgg taxaw ci plateau xam nga man lan mooy sama kii da ngay ñëw mbéjaa jël la ma jël ma nga ne nangam ci ay suur lii dina am man loolu ci laay na ma ci xam-xam ndax Mali looloo fa am Mali gi ma nekkoon looloo fa am Nigéria looloo fa am mi looloo fa am euh, Sarako euh, nu ngi koy waxatee euh, Benin looloo fa am xam-xam dangay ngay teg seen ku nekk na lii ak lii mooy am wax baaxut wax ju bari baaxut mm-hmm. xam nga lu am solo mooy jëf jëf moo ëpp solo. xam nga loolu moo am solo ba ilaa yow mi abat ba ilaa yow mi yu baax a suuna nit bu tukkee kenn du ko setal parfois da ngay wax mbirum seet nga ne képp koo xam ne léegi nit bu duggee da foto sa loxo yi nga yónnee ma sa ñaari loxo yi ngay foto yónnee ma lépp loo ma gis ci àddina dama koy wax man dama lay seetal sax boo xoolee ki liggéey. ah bon. Mhm. mën di liggéey ñii seen papa ñii seen yaay ñii seen jabar te am ci liggéey yoo xam ne lekk la doon yeneen liggéey yi li ñuy daaj ci guy yeneen liggéey yi moo la koy def daaj ko ci benn affaire koo mën di doon incha allahu taala su ma la defalee listixaara waxaan dinaa la wax lan mooy sa ak lan mooy sa sarax. ci kàttanu yàlla aussi. daal am na am na lu ñu fi bàyyi duñ duñ duñ tagg bopp ñu ngi sant yàlla bu baax nag di jullu ci yéen di wax alayhi salaatu wasalaam. am na solo trop dañu gis say commentaire parfois am ku wax mu ne bay wax ci mbirum sëy nga yaatal ko parce que sëy nga faram-fàccee ko da nga gis koo xam day takk nit ba pare aussi delu ginnaaw nga gis koo xam day takk nit avancé nga gis ko xam te day takk nit léppam tëju la waral lu mel noonu. xam nga dafa am loo xam ne Euh, maaraay duñ koy jaawale ci wàllum relation beneen bi ci topp mooy ñaari àndandoo yu ànd taxut seen lépp ànd. ah beneen bi ci topp mooy ñaari rawxaan yu ànd taxul seen lépp ànd beneen bi ci mooy ñaari wërsëg yu ànd taxul seen lépp ànd beneen bi ci topp mooy ñaari rab yu ànd taxul seen lépp ànd man ngeen ànd ci wërsëg waaye du leen ànd ci rawaxaan boobaa pour ngeen am lu leen lekk da leen të parce que àndoo a sax rawaan astaghfirullah bu fekkee ànd ngeen ci war wërsëg lépp lu leen bëgg seen àddina ci wàllum alal mën ngeen ko am waaye du leen jóg ci di na parce que seen ñaari rawaan yi dañoo dëppaloo seen ñaari rab yi ñoo ñoo ciyeloo nga xam ne à chaque fois xulóo yu dul jeex waaye nag lépp loo xam ne ndaw si daf koy bëgg daf koy am lépp loo xam ne ku góor dafa daf am parce que na nañ ci wërsëg waaye nuñ ci rawaan léegi bu fekkee na ngeen ci rawxaan te àndoo leen ci war wërsëg mooy waral lépp loo xam ne bëgg ngeen ko yéen doo leen ko am yéen ñaar yaa ngi dégg waaye lépp loo xam ne bëgg ngeen ko pour ngeen am ko du yomb waaye ndaw sa fa lay sax du mën a dem daa amoon abat parce que ànd ngeen ci rawxaan ànd ngeen ci biddiw léegi nag jàppal ne doomu aadama kaat lay am kaat dina am rawxaan dina am biddiw. dina am rab moom la olof di wax àndandoo dina am xuddaam doomu adama yii lay am léegi ñeenti bu ci nekk dafay am dafay am sarax léegi sëriñ génn ci télé la sa saraxu biddiw waa léegi boo defee sa saraxu biddiw ba pare di la dimbali ba pare sa rawaxaan yàqal na léegi sa xuddaam di la yàqal nag ba pare sa yi nga xam ne ñoo nekk ak yow di la yàqal nag ba pare yow bis bi nga ko defee xanaa moo am na ci sarax yoo xam ne boo ko génnee ci suur bi xëy na génn sarax moo gën a danseré te xamoo jour bi ban rawaxaan moo taxaw ndax rawaxaan boo gis ci àddina am na jour maanaam juróom-ñaari fan yi ngay gis yàlla borom bi tabaaraka wa taala daf koo jël séddale ci juróom-ñaari fan yi chaque jour bis bi yàlla sàkk benn rawaxaan mooy taxaw benn turu rawaxaan boobu dafay ànd benn turu jinne ba pare dafay ànd ak benn turu malaayika ba pare ànd ak benn turu xuddaam léegi nag yow bis boo gis dafay ànd ak benn turu rawaxaan ànd ak benn turu xuddaam ànd ak benn tour malaayika léegi bis bu ci nekk lam ak lam ak lam ak lam mooy dox léegi yow boo xëyee benn suur ñi rek jékki-jékki rek génn benn sarax yaa ngi ci danger mhm. parce que jour boobu xamoo ban rawxaan moo taxaw xamoo ban xuddaam moo taxaw nga xëy rek génn sarax mhm. c'est impossible. dëgg macha parce que xam tax. Uh-huh. rawxaan bu taxaw bu fekkee rawxaan danger la nga xëy sëriñ génne loola sarax. sarax. Mhm. am na solo trop dañuy continuer ak yow ba tey dañuy gis parfois ñu bëree bëri dañuy feebar bëgg a yem jëkkër lu mën a am jëkkër ñu naan rab la ñu naan du rab ñaari day dàq fa léegi nag ma préféré sama wàllum liggéey. Mhm. daa une minute rek maa ngi jégalu baax. bëgguma ko yàkkamti. képp koo xam ne ñu ngi jëflante. bëgguma ko yàkkamti. damay bañ ku yàkkamti. bëgguma ko ak ku mu mën di doon bëgguma ko yàkkamti yàkkamti baaxut. boo bëggee ku la lu baax sëñ bi nit ki bëgg laa génneel sa rawxaan bëgg laa génneel sa saruxu rawxaan bëgg laa génneel sa xuddaam wérdal la ko am lu mu la ci liggéeyal defaral la lu mu war a defaral yàkkamti fat fat fat mel ne ma damay ñëw poñe yàlla ne ko jox ma lii donte mën naa ko sax waaye du ma jël yàlla di ko poñe yow boo xamee da nga yàkkamti ba njëriñ la ma amal yàkkamti baaxut yàkkamti yàqule xam nga ñu ci bari dañoo xaw a xër ci man ndeysaan waaye ak koo mën di doon ak dal da ciy am dama leen koy wax à chaque fois ak dal da ciy am ak dal ak dal ak dal ak dal da ciy am ak dal da ciy am loo xër-xër ci man dalal loo xër-xër ci man dalal dalal leen la liggéeyal defal la lépp loo xam ne war na la ko defal te incha allah buñ la ko liggéeyee liñ ci bëggee noonu mooy am waaye ak dal dafa am solo doomu aadama bul di jël li nga xam moom la defaral da nga koy may ak dal mu liggéey la normal liggéey la ne war ci yow jox la ko nga jëfandikoo waaye yàkkamti baaxut léeg-léeg nga jox nit garab bala ngaa wax ba àggal sax mu dem def mu dem defee ko moom nu mu ko neexee nga loolu baaxut mm-hmm. moo tax ak dal da ci am solo. am na solo beneen bi ci topp mooy mm-hmm. listixaar rawxaan dama koy def nit ki bu fa toll loxoom yónnee ma na ma diglu dinaa ko wax ne ko telle heure dinaa la woo moom bu ma woo man am na ci heure yoo xam ne man maa maa leen woo par benn par benn benn. léegi ba joxee sa sa wàllum listixaar yow bu ma téye ñaari fan rek mën ngaa woote xamal nañu sëñ bi bàyyi naa sama listixaar su ma ñëwee naa la woo tant que ma tudd ñaari fan yow bul ma woo bàyyi ma def li ma def ba pare man dinaa yëkkati sama téléphone woo la sa bopp ne la bi wala ma ne la si lii ak lii ak lii ak lii bu fekkee nga ñëw ci kër gi nga ñëw ñu defal la ne war a defal benn bi ñi xam ne yéen ngi bitim réew yéen seeni activité bokkul ak suñu activité ñun fii dañuy am dañuy am sarax yéen amoo leen sarax fii ñun dañuy am fii ñun dañuy am dañuy am euh, dañuy am dañuy am am tudd dinañ am miraas dañuy am màggal dañuy amee cant dañuy amee gàmm yéen seeni activité bokkut ak suñu activité yéen maanaam jot gi ngeen am ñun duñ ko am ñun ñu nekk fii ci biir réew mi bu leen jàpp jot gi ngeen am ñu ñu nekk ci biir mi ñu dañ koy am moo xam sëriñ ci yam moo xam sa doom kon nag di leen di comprendre ñu ñi nga xam ne ñu ngi fii mhm. te def naa ko daal ma ci am solo. am na solo trop maa doon laaj sàng ci néegu sëy pour nga ci néegu sëy jëkkër jafe la ñu bëri naan rab moo koy waral. xam nga bani aadama wala xadd karam naa bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri wa rasaqnaahum min at-tayyibaat wa faddalnaahum alaa kasiir mimman xalaqnaa tafdiilaa am na luñ ci liggéey loo xam ne bu ko joxee doomu aadama bu ko ñeganaayoo day am jëkkër daf koy yomb. daf daf koy am day xëy rek am ko ne ko salaamaaleykum même jour bi day am jëkkër ak ku di doon day am jëkkër. benn fan benn fan. Mhm. dama ko ciy liggéey. am na solo. incha allah. Euh, macha allah euh, parfois lan euh, ñuy jàpp nit ba xamante ni lu mu bëgg du sotti mel ni ko umu. xam nga des fois nga dégg nit ñu yàq ko xam nga doomu aadama léeg-léeg mën nañu koo yàq. nit koy yàq. léegi bu la yàqee. wala ñu liggéey la am noonu la def lépp loo dugg du sotti wala gars yi wëlbati sa biddiw nga xam ne dañuy jël sa mbir dañ koy wëlbati buñ ko wëlbatee loo dugg du loo yaakaar day yàqu foo dugg doo am dara loo liggéey muy yàqu kër boo samp da koy jaayaat oto boo yor jaay ko yére boo yor jaay ko téléphone boo yor jaay da ngay dem ba yow doo am dara sa adduna parce que dañoo wëlbati sa mbir mm-hmm. lépp lu dem ci lay ñëwaat moo tax ñu dina naa la danga ñu defal la listixaar wax la sa léppi àddina man bu ma defal dama lay wax ku liggéey kan la ak liggéey bi fan la ko suul ak yéen ñaar lan ngeen jotee ba mu liggéey la ak fan ngeen doon histoire ba mu liggéey la dama la koy wax incha allahu taala ci kàttanu yàlla léegi listixaar gi moom lépp yu mbir doomu aadama bi daf koy génne waaye doomu aadama bi bu mu wëlbatee biddiwam rek na jàppane ne addunaam yàqu dafay yomb incha allah Euh, am na solo trop dañuy continuer ba tey euh, ci mbirum bayra dañuy gis parfois koo xam dafay am bayra gis nga ñoo rey nañ ko. xam nga doomu aadama mën naa bañ a takk dara sax am bayre mhm. mën naa bañ a sangu sax am bayre ndax daf ci am ay jour yoo xam ne suuru bayre la du ci mel ne lundi ak sodi nit ki ci juddoo rek pour mu fës dafay yomb boobaa du jar mooy takk du jar muy sangu du jar muy naan du jar muy def leneen loo xam ne dafa bëgg. kooku nag mën naa am tur trop mais mën naa bañ am am wërsëg léegi nag bayre à chaque fois dama lay wax ne la bayre ki nga xam ne moo leen ko defal mooy musicien bi wala politicien bi yaa ngi dégg wala ki nga xam ne sëriñ la day soxla wàllum mbooloo képp ku yëngu ci wàllum àdduna nga xam ne yow da nga bëgg ay mbooloo di dikkal mm-hmm. kooku mooy soxla li nga xam ne moo di bayre mm-hmm. waaye ki nga xam ne dafay jaay yor place kooku warul soxla li nga xam ne kooku warul soxla li nga xam ne moo di bàyyi place. lu mu war a soxla. kooku njarte lañ koy defaral. Mhm. lépp lu mu teg ci taabal ji dañ koy jaay. léegi ba demee ci sëriñ nag maa bëgg nga defaral ma bàyyi place ma war a yow place boo dugg marché bu nit dugg laaj la sa tur dina feeñ ñëpp lay xam waaye doo jaay parce que dañ laa defaral bàyyi jaay te yow ab jaay kan nga kenn warul laa defaral bàyyi jaay dañ laa war a defaral jaay njarte gis nga simbi bu ma la defal li sa xaar waxaan gi ma lay wax doon wax léegi nii. ba wax la sa sarax wax la say mbir ni nga ko war a defee nga defee ko noonu mbindeef mu yàlla sàkk mu ngi laa tere am alal sim mm-hmm. bi saraxu rawaxaan moo gën a foor ay biddiw ak ay nàngam ak yi ngay dégg ni yëpp dara yooyu ay foola rek mm-hmm. teg tablo xam nga doomu aadama am na ci loo xam ne da koy génne ci tablo par exemple nga euh, rëdd nit ki ngay jël turam turu yaayam dugal jël tur rawaxaan dugal nga ne man nangam ak nangam damay génn rawxaan bi loolu raw xaanu saahir la du rawxaanu baatin xam nga loo xam ne tey bi la sàccee par exemple nit ñëw sàcc la lam la sàcc mu jël yóbbu ko yow euh, sa kii euh, sa boobu nga jël teg ko di expliquer nit ñi mën na laa jox résultat bi mën na laa xamal exact fan ak fan ak fan falatal fan ba nekk wala boo doxaatee temps jour dina la ko indil loolu mën na ko wan loolu rawxaaniya moo la koy wan yaa ngi dégg. gis nga doy na waar daal en tout cas du jàll ci leneen. am na solo trop fi ñu koy tëjee mooy mbirum noom. xam nga à chaque fois dama lay wax na la trois moo am sëriñ si dañ koy jaawale. Mm-hmm. diggante jëkkër ak jabar ñoom ñaar foofu nopp amu fa. kenn du ko nopp. jëkkër kenn du ko nopp jabar kenn du ko nopp foofu dëj moo fa am maa kii na fii abadaa dañu ko liggéey ci doomu xaal gas ka gi ba mu ñu ne ko ci mbëddëx suul ko da bëgg sa jëkkër da koy am njaboot gi dinañ jubboo mhm. képp kun dugal si tur foofu loolu dafay sax mhm. insha allahu taala ci baata miim lañ koy wane mhm. man nag bu gisee man du ma wane nomba banaa ko du ma wane téere bàyyi naa ko du ma wane sunguf banaa ko xam lu tax sama xam-xam mi ngi dafa doy sëkk lii ak lii ak lii mooy am su ma la waxaan ci laa sukkandiku lii ak lii ak lii mooy am nga jël ko ne ko fay ñëpp teg seen bët loolu doy na léegi amaana li may waxaan nag ku gëm baax na ku gëmut baax na man loolu intéressé wu ma yow mooy siifur mënumaa jox ma lekk mënumaa jox ma naan mënumaa jox kaat-kaat mënumaa tabaxal kër amuloo ma benn njariñ damay wax li nga xam ne moo war a am yàlla suñu borom amaana boole na ma ak ay nit ñoo xam ne amal naan ma njariñ waaye nag yow mi nga xam ne yaa may siifur te jàpp ne yàlla mayewut yow yaa tax may wax waaye ki nga xam ne dafa si te jàpp na yàlla maye na te am yaakaar ci ñun dañuy ñaan yàlla yàlla ji yaakaar jooju tas mm-hmm. loolu bëgg nañ ko waaye moom nga xam ne rek maa toog dama siifur ñi rek naan lii ak lii ak lii loolu amul benn njëriñ ñu ngi sant yàlla di santat yàlla di santat yàlla wax dëgg yàlla képp ku ñu xam-xam ne ne ñun ñu ngi sant yàlla sa jàngat ci réew mi deret ju bari ah waaw beneen bi ci topp mooy gis nga at nekk ni mi nga xam ne mille cent quarante cinq at mi dafa tàng jëpp jëpp jëpp jëpp accident dina fi bari beneen bi ci topp mooy mhm. balaa yàgg dara mhm. di nga dégg ab journaliste boo xam ne dafay faatu ab journaliste waaw bu mag bu siiw boo xam ne moom dafay faatu beneen bi ci topp mooy xam nga ni woon naa la am na ku ñu rey di nga déggaat keneen koo xam ne tamit dañ koy reyaat am na keneen war a reyaat yaa ngi dégg waaye kooku tamit buñ ko reyaat kooku dañ koy jamate hmm. waaye paaka li jëm jamate ko ba addunaam yàqu parce que an yu mel noonu da ciy bari ci mbirum rawaxaan yi ak surtout ci lu nga xam koy wane paaka lay jël rey ko ba pare jamate ko beneen bi ci topp mooy euh, di nga dégg ko wax maanaam lu jëm ci wàllum ëmb koo xam ne dañ koy violé maanaam def ko ay ñaawteef ba nga xam ne feer boobu day mujj dafay siw hmm. dafay mujj am ay problèmes yu bare bari loolu dinañ ci am ci nga xam ne moo di at mi nekk nii jaaxal nañu bëri. benn mooy ab taw dina fi ñëw maanaam suuf maanaam li ñuy wax suuf su yëngatu nga xam ne Maroc dañ gis waaye dafay amaat beneen suuf soo xam ne moom dafa yëngatuwaat dafa am beneen suuf soo xam ne dafay yëngatuwaat waaye dina daaneel ay kër yu baree bari yaa ngi dégg waaye lu ci ëpp nag bii di ñëw ak moom ci beneen réew naar la yaa ngi dégg waaye nañ xam ne lu mu yàgg yàgg yàgg yéen agsi suñu réew mu fii. lu mu yàgg-yàgg dina agsi Mauritanie incha allahu taala di ñaan ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah